dundu gëm yàlla doon ko nimsee gis lool doon ko yàkkawle ko yàlla indi na ko yàlla nanu fi yàlla bàyyi ba nu man koo jooxe ni mu ko santaane moom mi nga xam ne moo wax ci alxuraan ne moo gàll ci sunu kaw ñun jullit yi bu weeru koor ñëwee nu woor ko weeru koor nag am jagleeg boppam ci biir weer yi suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne su ngeen bëggee xam am at yaata weer a ca nekk na ngeen xam ne ku leen ko laaj tontu la mooy fukki weer la ak yaar fukki weer ak yaar yooyee am na ca yent yoo xam ne yu yàlla baal xel la waaye tëxut nag mu tudd ca wenn weer nu mu tudd waaye weeru koor la ca ne sempet tudd ko ca jox ko ay jagle yu mu joxul wenn weer kon ku ko fekke war ngaa gaaw eh, li gone yi di wax profité eh, mooy lu lay romb yi dem rek te nga bëgg a dem nga gaaw sànni sab saak wadd ne ñoŋ ca kaw ku mu raw kat day del si waat déwén waaye weneen moom eh, weneen la dutu amaat wu jàll jàll ya jàll lu ca waay defutoon jeex du ñëwaat ay moroomam nag mën nañoo amaat waaye moroomam yooyu ku xam fu koy fekk kon ku ko fekke war nga gaaw aj la nga ca mën a aj te yéeg mu yóbbaale la yàlla na ko yàlla jàppandalal bokk na ci jagleem yooyu tudd gim ko tudd ne ci la wàcce alxuraan kon weeru jàng alxuraan la mu gën a bare ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ne moo nun ñoo niroo bind am malaaka daana wàcc mu ñuy wax jibri jibril mu mel ne dañuy nafar alxuraan am nañu ne guddi gu jot ñii ne guddi gu jot ak bëccëg gu jot dana ñëw dem la muy tekk rek mooy kon weeru koor weeru jàng alxuraan lu bare bare bari la te weeru koor it bu ëllëgee mook alxuraan moomu nit dana toll ci ay xat-xat ñu xettali ko loolu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ëllëgee ña di jullit te nekk ci ay xat-xat xamaguñ lu ñuy def ku ca sonne woon weeru koor nam ko war a sonne te mooy woor ko mooy woor ko koor mën na koo séen xàmmee ko ci gaayam ñëw ne yàlla kii kat tin ma ci tin lu tax saa bu weeru koor masan ñëw maa ko daa tee lekk kee koo naan tee koo def mbooleem yi nga xam ne yu dagan ci moom la kon rikk yàlla tin ma ci tin nag ku xamut lu mu doon mooy kuñ ne dañoo téye kenn fa ña ko war a téye téye ko ñu yaakaar ko ci woo mu dem ànd ak moom ñëw loolu mooy tinu day tinu ci ñu tin ko ca jox ko ko mu ànd ak moom dem weeru koor nag yàlla daf koy may bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne yàlla tin ma ci kii maa ko teewoon di lekk bëccëg ak a jëfandikoo mboolem yi dagan mu jëfandikoo ko ci lu dul weeru koor waaye alxuraan day ñëw ne yàlla yàlla nag ma tin ci kii maa ko teewoon a nelaw guddi guddi gujot jot daf daan taxaw di ma jàng léeg-léeg mu jàng ba mu yàgg mu jóg julli ay rakka te kuy julli ay rakka dañ ci jàng alxuraan kon rikk yàlla yàlla nga ma ci tiin yàlla tiin ko ca kon weeru koor weeru alxuraan la waaye weer wu yàlla jox ay jagle yum joxul wenn weer la waaye ci weeru koor it ki nga xam ne woor na ko mën na caa am yoolub ay weeru koor yu bari ya ko rawoon ak yay ñëw ci kanam te na du ko fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu te fekk yow mii koy jox ndogu li dangaa wooroon danga am ci jox ko gi nga ko jox ndogu yool bu toll ne moom kooram nga te du yàq dara ci yool bi nga war a am ci sa ak koor yow kon nag ña koy jox lu gën a bari ngay gën di bari le ay weeru koor waaye ci weeru koor it ci la yàlla barkeel lépp ba ci lekk ak naan daanañ lekk ci weeru baraxlu bi ak ya ko jiitu waaye nag amu ca wenn waxtu wuñ cay lekk wu yàlla tudd tudd ca barke lu dul weeru koor yonent bi sallallahu moo jàngale ne eh, dee leen am nañu ko ñàkkal solo lool nga xam ne tàyya la yeew rek moo leen koy teg nee na dee leen xadd ndax xadd barke da caa am waxuñu lekk suur kese waaye ndekkite yoo lu barkeel nag mooy loo xam ne fu mu fekk lu bari dana ko baril fu mu fekk lu fu mu fekk néew mu baril ko fu mu fekk lu bari mu saxal ko waaye du fa bàyyi ko mukk ci fekk waajaa ngi dund moom lu barkeel du fa bàyyi ko mukk fekk waajaa ngi dund tasaxaru fa inna fi barak fa inna fi baraka waaye taxawaay boobu ma wax léeg-léeg nga ne gàmm ne waat fojjat jug taxaw julli ay rakka ba sonn tëddaatit la ca suñu boroom wax ci weeru koor waxu ko ci wenn ko wenn weer ci njàng yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min danbi koo xam ne fonk na bu guddi ku jot mu julli la man bu sonnee dallu yàlla dana ko te fekk yàlla rekk a tax yàlla rekk tax yàlla dana ko jéggal bakkaaram yam jotoon a def te xamu ko ak yam xam yépp moo ne ci weeru koor it umra ca yëmut ak wenn weer ci weer yi ñuy umra ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku umra ci weeru koor dafa mel ne àndoon nga ak moom ba muy aji makka umratun fi ramadana taadilu xajji taadilu xajjatan maani moo ne ci weeru koor it lañ gis koo xam ne kum dëgmal nga du mooyu ndax gémmiñ gu xeeñ la koy waral mooy bu dul weeri koor it ku sàggan ci gémmiñam mën naa am léeg-léeg ku mu jub mu du moyu waaye yàlla nee na ci weeru koor moom loolu di xeeñ ci gémmiñu ku woor moom yàlla moo ko dàqal fuuf xetuk misk kon bokk bokk yi war nañoo xam ne koor ñëw na te bokkut ak weer yi nga xam ne moo ko jiitu woon du yamit ak weer yi nga xam ne mooy ñëw gannaawam ñu xam ne it koor moom bu ko yàlla dong moo ko moom yàlla kese ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale nee na jëf yi doomu aadama li ko tàmbalee benn yàlla daf ko koy fulal bu defee benn mu fay ko juróom tere ko juróom-ñeent muy fukk ba ba muy mat juróom-ñaari téeméer waaye nag koor moom yàlla nee na lam cay fay nit ki wutalu ko fu muy yem fa innahu lii nee na moo ko moom te junju nañ fi ca ginnaaw ne kenn ku ci nekk nam toll lay jëfe da gis ku def dara ci mbedd mi nga ne ko def li ñu ne diw la du betti kenn moo xam muy jëf ju rëy rëy ci baax wala muy jëf ju sew ci ab safaan yàlla na ci yàlla musal koor it waroom xam-xam yi wax nañu ne mooy genn jaamu yàlla goo xam ne musu su koo defal kenn ku dul yàlla ñu jëkk ñi daan jaamu lu mu mën a doon daanañ ko jaamoo nu nekk di rey ay gàtt di rey ay ay gudd ay gàtt ak gudd di joxe alal waaye nag woor ngir loola ma mus sa am yàlla rek lañ mas a woor kon ku ci yàlla boole ngay woor te yàlla nga nga bokk ci ñu yàlla teg koor ñu nangu koo woor te man koo woor te nangu ko loolu cant gu rëy rëy rëy gu ab jaam war a sant digganteem ak boroomam la ndax nee na moom moom rek moo mën a fay koor wa ana ajzi bi kon boog weeru koor nga noonu ñi ko doon nim see fekk di ko yàkkawliku agsi na nañ gaaw ndax loo xam ne bu gutoon a tàmbali toll fii mu toll fi mu ne nii ku yéex rek mu bàyyi ko fi yàlla noonu yàlla jàppandal wér ak ku man guñ ko mën a taxawee ci biir weeru koor nag daanañu wax ne diw anamu ñu ne daa dem buñ ne ko foo demoon mu ne da doon dàqi kooram dàqi koor mi ngi am ba léegi waaye am na yit yoo xam ne day sàcc koor yoo xam ne fi mu ni nii tembe day sàcc koor nga xam ne li nit ko waroon a taxawee ci biir koor gi yàlla bindal ko ko ci ab yool loolee day rocc day rocc loolee benn benn ba ba muy jax takk mu defee ne lam dencoon ma nga fa te fekk dara nekku fa yàlla nu ci yàlla musal ba ci jiitu mooy euh, télévision yi am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba woor dutuñ tal dara lu may seetaan télévision musal salaat série yeeg feuilleton yi bu jeex mu toppal te ba ca des te ya cay wax lu jëm ci yàlla néew na kon fa yooyu noonu day télévision ak la muy àndal te bokkut ak lam war a àndal cib jullit mu war koo xool day sàcc koor waaye it jay ja mooy marché yi nit ki war naa nekk ba am yitte ju ko mat dem doxi ko wàññi ko dil si waat waaye am na ñooñ xumb xumb ba fa la ñuy dem di dàq koor gi waaye bu ñu koy dàq ci marché ba lañ ca amoon ko si néew sàcc ba da koy sàcc marché da koy sàcc yóbbaale ko ñu ñàkk da koy dàq defe ne mi ngi koy dàq fekk sàcc nañ ko ci yoxoom yóbbu ko yàlla noonu ci yàlla musal waaye bokk na ci sàcc yi sàcc koor it fokk bañ a nelaw guddi gi lëm grand place bu tas mu dem ci beneen ba ba ñuy xëdd mu xëdd dem door a dem tëri nag di nelaw ba tekkusaan jot mu jóg anna li nga xam ne moom la nit war a def diggante bu jullee suba ba noppi ba ba jant bi fenk ana li nit ki war a def ba la ñoo jul tusubaar ak li ñuy def tusubaar ci boppam ak gannaaw tusubaar ak jëkk tekkusaan ak gannaaw tekkusaan lépp raw na ko ma nga ne wàtt di nelaw ba buy jóg tuuti mooy des ci dog diggante ba muy laal ndox ak a kuuj kuujal ñu di ko lalal lañ koy lalal ñu ne dog jot na kooku xamul ci bëccëg bi dara kon fokk guddi yi ci sàcc su mag si la bokk ci biir weeru koor te bokk yi néew na ñuy fokk ñoo xam ne jullee leen tax a fokk wala istigfaar yu dul jeex déedéet grand place rek fu tas ñu jàll feneen fu ñu dem ba ñooy tàmbalee bé bébbli rek ñu ne kon dama fay jaaroon rek jàll feneen nuyoo ñu fay leen ñu toogaat waaye bokk na ci sàcc su mag si sàcc nit ñi ci seen koor yi itam mooy téléphone yi dugg ci yi ñuy dugg nga xam ne dangay wax lu yàgg te li ngay fay du bari ku jeex nga woo keneen am na ci ñooñu dañuy mujj loo wax sax ñu ne waaw waaw waaw te fekk waaw sax jaaduwul waaye dañoo sonn loolu it ci sàcc yi sàcc koor la bokk rawati nag wax joo xam ne day jural nit ki bàkkaari kese jëw rambaaj nee nañ am na ñu wax ne gaa yi nee nañ ba téléphone bi yàgg lool rawati nag yëg ngeen li am biig ak li diw def biig loolu moom bokkut ci wenn koor wenn weer waaye koor moo ci raw yàlla nañu ci yàlla musal waaye bokk yi am na sàcc boo xam ne day sàcc koor muy nay nay nag tekkiwut ne ku yor lu ne gàññi te du joxe rek moo ko doon waaye nay euh, benn borom xam-xam nee na euh, ku nay mi ngi xaru bu fi bàyyi ko ña muy bàyyee alal ja day leen di fërloo moom ci boppam day xaru moom ba dee waaye ña muy bàyyee alal ja moom dañuy lekk lekk ba fër ndax yaari loxo lañuy ñuy lekk léeg sax ñu samp seeni tànk mos ba xam tànk lekk tànk neex nam de yàlla noonu yàlla mosul ci loolu kon koor dafa ànd ak saraxe ak joxe kenn ku nekk nam tolloo léeg nit ñëw taxaw ne amut lu mu ndogoo ji wax na dëgg waaw walla déet loo man jox ko mu néew mu bare ndax mu néew bu ko ñu bare joxee lu néew léegi tey mu am solo waaye bokk na ci yi sàcc koor it tudd naa ko léegi ci foog guddi gi waaye am na ci bëccëg biir jataay yoo xam ne yi amul benn njariñ jataay boo xam ne bu dee yenn dëkk yi ña ngay dam ye ñenn ña ña ngay yoote ñenn ña ña ngay mariage bu dee dëkk yi nga xam ne dañ ko fa tere ñoom dañ leen ko soppil defal leen ko li ñuy wax lido mu mel ne du dara te fekk waxtoo nga cee jàll woo xam ne bii kenn ku ci nekk fa mu toll ci am njàngam bu jëloon lam jàng ci alxuraan di ko wax ak a waxaat fa yéene weesu fa mu yamoon bu koor gi jàllee dana am jéego yu ndox dox njàngam alxuraan moo xam muy góor wala muy jigéen moo xam ñiy fay xaalis wala bañ wala fayuñu xaalis am na si ñoo xam ne ñi moom ca jàkka ja lañuy def seen majalis yooyu waaye buñ génnee ci jàkka ci waxtu duñ jàng alxuraan duñ istighfar duñ azkar dafay azkar waaye la ñuy def mooy di seet yi génn numéro yi génn léeg-léeg nga dégg ku ne numéro huit moo ko rey wala neuf walla dix te fekk moo rey bàppam kon koorangu noonu sàcc saangu noonu kenn ku ci nekk na ca xool boppam fam ca toll su ko defee moom fexe ba kenn bañ ko sàcc lam ca ama ko si néew mu ne ko nànk tum ak ay yoxoom yu dëgër mooy ca fexe ba bis bu set mu def ca bis ba jàllaale ko bis ba bis bu ne mu sëf ca ba mu dis gan mu yóbbaaleel ko ko ndax lii jot a jàll ak ku si lu ca jàll te lu ñu ci defutoon rek jeex na dootu amaat xanaa séntu ko déwén yàlla doon yàlla may nag ñu fekke ko yàlla na nu yàlla may nu fekke jeexitu weer wi te ànd ko gu wér bañ mën koo defee ni ko suñu borom santaane dellu ñaanal ñi nga xam ne moom ñun ñoo fi bokkoon nekk daaw te fekki wuñ ko ren yàlla na leen yàlla yaram ñi nga xam ne it ak wér dee leen tee mën a woor yàlla na leen yàlla mayu wér ba di des ci koor gi ñu mën koo dab yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin